faslu li ab dog la fil xaj ci aj aj am na ñeenti farata mbaa nga ne am na ñeenti ponk xam ne benn bu ci manqué rek moom dañuy jàpp ne aj amut bu jëkk bi mooy yéene ñu koy tudde armal boo dogoo ci aj ga mbaa xumra ga rek armal nga te loola moo tudd yéene boo dogoo ci xol bi mooy fas nga ci xol bi def aj ga mbaa xumra ga rek loolu yéene la tudd tayit moo tudd armal kon armal ak yéene benn lañ teewul nag am na lu ci aju rek loo xam ne moom dana ànd yéene ja waaye ca dëgg-dëgg daal moom boo yéene rek armal nga war bi ñu tuddee ifaada mooy farata ñaaral bi moom mi ngi ëpp am ci bisu tabaski bi waaye nag bis bi jaale defoo ko itam faaw rek nga def ko ndax boo ko deful doo yeewee ko mukk mukk wooy boobu ba tey farata la dox safa ak marwa dañ ko tuddee ci wolof daw safa ak marwa rek waaye dox rek la am na diggante bu ñu gaawee rek boo fa tollu daañu ko leeral dox safa ak marwa daal wàññi ko rek kon muy farata muy ab ponk muy ñetteel ba nee na taxaw arafa mooy ñeenteelu farata yi kon aj maak ay farataam mooy armal li neex tudde ko yéene tawaaful ifaada dox safa ak marwa ak taxaw arafa nee na sunay aj yi boo ko dee wàññi fukki sunna laal ñaar am na ci yent yoo xam ne nee na ba ngay armal nga leen di def yow mi aj daal jamono nga toll ci armal ngay def yent sunna yooyu le am na cangaay loo xam ne nit ñi sangoo janaaba nga koy defee te day sës ci armal gi nga xam ne boo ko defee ba noppi daal di sol sa yëre armal daal di armal fa saasa waaw cangaay loolu sunna la te mi nga aju ci armal nga bu dee góor daal moom sunna la bu xësee armal bañ a solo ci dara lu ñaw ba mën a warub cër mbaa ñu yeewu ko sax mbaa ñu fasse ko ba mën a warub cër sax lu ñu mën doon rek dañ ko tuddee sax sunna fii rek waaye waru gar la bu ko defee rek am alamaan gannaaw ma armal laata mu yeewu ko bu ñu solee lu ñaw moom góor daal di am alamaan moo tax léeg-léeg ñu tuddee dara sunna te fekk na waru gar la aj dafa am ay wari gar yoo xam ne boo ci bàyyi rek am alamaan nee na nag bu dee góor bañ aaye ko sol luñ ñaw kon sunna la mu boole yett yi wut teraxlaay wut ak làmbaay wut ñaari daal di carax yett yi bu ko boolee muy benn ba dee sunna lay doon ñeenteelu sunna yi aju ci armal ga moo di bu armalee mu daal di tàmbalee wax labbayka ndax bu armalee lu yàgg te waxu ko sax alamaan daal di koy war rawante na nag bu fekkee farul sax wax labbayka benn benn yoon kon labbayka daa bokk ci ñu tudde rek sunna waaye fii mu nekk nii bokk na ci wari gar yi nii lañ koy waxee labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak kon yéen sunna yi aju ci armal nga rek mooy cangaay la ngay def tam mel na cangaayal janaaba tam sës ci armal nga ak boo dee góor nga summiku bañ a sol lu ñu ñaw summiku ga bañ a sol lu ñu ñaw ba noppi itam nag wut yett yii te moo di làmbaay ak caraxlaay ak daldi carax loolu sunna la kon ñetteelu sunna yi mooy boole yett yi làmbaay caraxlaay daldi carax ndaxam sax daal di carax du cib sart waaye dañuy bañ mu sol ay bot ndax bu armalee dañ koy aaye sol ay bot bu fekkee am na yeneen dàll bu fekkee booti kese la am itam da koy dagg ba nga xam ne ay dojaram day feeñ wër kaaba am na yenn sunna yu ci aju machine mooy dox ak tànk ba ci njëkk mooy booy wër kaaba gi bul war bala kenn yenu na nga dox ak sa tànk waqublatun ak fóon toj wa bi famiñ ci gimiñ aw bi yedin wala ci loxo ba tey yoon wu njëkk wa ci wër gi wër kaaw juróom-ñaar lay doon yoon wu njëkk wa nag nga jaad fóon toj al xajar al aswad ci sa gimiñ ndegam mën nga ko soo ko mënut nga raay ko sa loxo jël sa loxo teg ci sa gimiñ te bañ koo muucu su fekkee nag mënoo ko nag ni ki mënoo ci àgg sax far ci doj wa nga dem ba fa nga mën a yem rek nga daal di junj nga daal di mépp sag foon daal di wax allahu akbar te jàll léegi nag su fekkee mën nga ko yoon wu ne da ngay jàdd taxaw fa fóon doj wi ci boo dee wër kaaba gi waaye nag yoon wu njëkk wa rek la fóon doj way nekkee sunna yoon yi ci des moom nga jàdd fóon doj wi lu ñu soppal waaye àggul ci sunna bu dee góor bu dee wër kaaba tamuy tawaaful xuddoom tawaaful xuddoom mooy war bi ngay njëkk a war boo ñëwee te amu yaatu ñu koy tuddee warub nuyoo war boobu ndegam góor nga sunna la yetti yoonu njëkk yi ndegam yaatu na nga lagg ko lagg nag mooy xaw a ñukkaali rek ndax weesu na dox ndànk te agul ci daw daw bu baax bu dee jigéen moom desu ko sàkku ci moom muy lagg bu dee tawaaful ifaada itam te fekk laggoon nga ci wër bii ñu wax warub nuyoo muy tawaaful xuddoom ba tey kon tawaaful ifaada du am lagg boobu le lagg boobu daal jàppal ndegam yaatu na ba nga mën ko teew góor nga te muy ci tawaaful xuddoom moom sunna la nga def ko yett yu njëkk rek nga koy def waaye yente ci topp moom doo ko lagg diiru yaa ngi wër na ngay ñaan loo bëgg a ñaan rek di ko ñaanal sa bopp di ko ñaanale képp ko bëgg a ñaanal loolu ba tey sunna la kon ñeent sunna yi aju ci wër kaaba gi mooy dox ak tànk yoon bu njëkk ba nga fóon doj ba nga tolloog moom ndegam mën nga ko yett yu njëkk yi nga lagg ko ndegam góor nga teyit muy ci tawaaful xudoom ak wër kaaba ga boo koy def ngay ñaan ñaan goo ngay ñaan booy wër kaaba gi loolu mooy ñeenti sunna yi aju ci wër kaaba dox safa ak marwa am na yeenti sunna ba ci njëkk mooy foo fekk dox safa ak marwa day sës ci wër kaaba soo wëree kaaba nag ba dem ba julli ñaar rakk yi wër ga fa gannaaw maqaama ibrahim léegi daal dem dox ci safa ak marwa moo ci war a sës waaye dañoo bëgg na nga ñëw jaaraat ci kaaba gi ndega mën ngaa foon doj wi nga foon ko nag léegi door a génn nag wuti safa jàdd ngay jàddaat nag jaaraat doj wi foon ko nag bala ngaa jàll ci safa sunna la bu ñu wàññiwaale ci dox safa ak marwa ñaareelu sunna yi aju ci dox safa ak marwa mooy safa aw doj la marwa aw doj la te it naqari wu ñoo yéeg sunna la koo ci àgg rek nga yéeg ba ca kaw jàkkaarloog kaaba gi bu dee góor nag su tolloo fa ñuy wax batul masil batul masil daañu ko daañu ko wax tam diggante ñaari poto yu natax ya diggante ñaari poto yu natax ya des na ko wax léegi as diggante la su nekk diggante safa ak marwa bëgg lañ góor gu fa àgg nga gaaw boo weesu ko moo xam ma ngay dem la moo xam ma ngay wàññeeku la bu dee jigéen moom mën naa doxee nam doon doxee rek bu dee góor itam bu weesoo diggante boobu rek jotatul muy gaawate su ca tolloo rek gaaw boo weesu ko delluwaat doxee nam daan doxee nag. moo tax man dañ koy tuddi daw safa ak marwa waaye lépp lépp du daw na moytu fëxe fee jëm fële day metti rek ci moom te santaani loolu diggante bi rek lay sàkku bu ci àggee mu gaaw boo weesu ko. nee na ba nga taxawee ci kaw safa ak ba nga taxawee ci kaw marwa ba jàkkaarloo. kaaba gi dañ ne woon jëmmi taxawaay ba rek mooy jëmmi yéeg ba nga yéeg ca kaw rek kaw safa kaw marwa dañ ne woon sunna la léegi nag mu ne nga boole ci ñaan nag ñaan nga ngay ñaan boo nekkee ci kaw safa kaw marwa ñaan googu sunna la ñaan googu amul yemukaay mooy yet ñaan googu nag ràññeeluñ ko ne ñaan sàngam la mbaa ñaan nga diir sàngam lay tollu yaay seet rek loo bëgg a ñaan nga ñaan ko kon yenn sunna yi moo aju dox safa ak marwa mooy ba nga noppee ca wër ba ba julli ñaari rakk yi wër ga bala ngaa dem ci safa nga jàddaat jaar ca kaaba ga fóon doj wa dooru génn wuti safa safa aw doj la marwa aw doj la lu ci nekk nga yéeg ba ca kaw mooy ñaareel bi kenn ku ci ne boo ci yéegee nga ñaan boole ca mooy ñetteel bi boo toll diggante fi ñuy wax batul masil nag mooy ci booy dox safa ak marwa fa tudd diggante ñaari poto yi na tax ya bu dee góor bu fa tolloo mu gaaw ba weesu ko bu ñu dee jàngale aj moom léeg-léeg ñu ne nangam sunna la te fekk na daa bokk ca wari gar ya ni ki leen wax ne booy wër kaaba dox ak sa tànk te bañ a war ñu bañ laa yenu sunna la fi mu nekk nii bokk na ci wari gar yi waru gar nag li ko wutaleeg farata mooy farata soo ko bàyyee la nga doon def day mel ne defoo ca dara dara warugar nag moom boo ko bàyyi day am alamaan rek boo xam ne moo la cay war te du tee la nga doon def baax am na benn kaset nag buñ jagleel aj ak xumra mi kaset bu leer bu yaatoo yaatu koo xam ne bëgg nga amuk leerlu ci aj bu baax a baax mën nga koo déglu aj daal moom nee na ku ko def te defee ko na mu ware set nga ci ay bakkaar wecc set nga ci mboolem xeet sikk yépp waaye nee na kat am na yoo xam ne nii moom boo ajee itam bañ ne set nga ci bakkaar set nga ci mboolem àq yi sikk yi am na ci yoo xam ne mbokku ca du tax nga set ca bokk na ca àq joo amee sa mbokkum julit àq jaambur moom fay rek mbaa nga wax moom jéggal la ko waaye aj gëdu tax àq ja nga amee sa mbokkum julit mu wàcc la ba tey julli gu la rawoon ba tey nee nañu faaw day aajowoo nga fay ko rek ndax yàlla baal la yeexe ga waaye waaye kon jàppal ne julli gu la rawoon daal moom ba tey faaw nga def ko waaye aji gi du ko far ba tey nee na bu fekkee amoon nga alamaan boo war a def ci weeru koor da nga caa dogoon te teglu ci alamaan mbaa nga defoon zihaar zihaar mooy nuróole sa soxna ak jigéen ju la araam araam tapet ni ki nga wax sa soxna ne ko yow daal yaa ngi mel ni ci man sama gannaaw yaay anti alayya ka zahri ummi lu mel noonu boo ko waxee sa soxna loolu zihaar la wax ju ñaaw la joo xam ne ku ko wax soxnaam du tax soxnaam araam ko ne gannaaw yaayam waaye daa am alamaan bu ñu koy teg te daañu ko jàng ci téere yi mel ni ar-risala yeneen léegi na saa yu ko alamaan bi waree moo xam ci weeru koor a ko waral moo xam ci zihaar a ko waral faaw da koy def rek waaye aj màkk kese moom lu tax loolu wàcc ko mu ne ba tey nee nañu boo umra dellu umra waat diggante yaari xumra yi loo fa defoon ci bàkkaar rek jéggal nañ la ko moo tax ñu wax ni xumra umra bu njëkk ba nga njëkk a def moom sunna la waaye boo xasee umra benn yoon nag sopp nañ at mu ne boo ko mënee nga dellu umra jiwaat te boo ko mën def ci weeru koor itam lay gën a ci ndax nee nañ na addis ba waxee umra ci weeru koor day wecc aj te taxaw taxawaay aj moo tax diggante umra bu ne moroom ma rek bakkaar yi nga fa defoon jéggal nañ la ko addis ba nga xam ne albuxaari andi na ko dane al umratu ilal umrati kafaaratun lima baynahuma teg ca nag wal xajju al mabrooru laysa lahu jasaun illa al janna am nañu ne muy aj goo xam ne kooku defu ca benn bakkaar jaddu ca yoon benn yoon am nañu ne alxajjatu almabroratu mooy alxajjatu almaqbolatu rek aj gu ñu nangu daal lañu bëgg a wax ne ajoon rek ay payam am ñu ko firee noonu aj ga ñu jàpp ne yéwénal nañu ko ba yàlla nangu na ko te payam mooy ajjana moo di aj goo xam ne kooka rafetal na farata yaag sunna ya ba noppi itam xeeti jaamukaay yépp da ko dox ak tànkam niki ba mu bàyyi koo màkk jëm minan dafa dox ba mu bàyyi koo minan ñëw arafa dafa dox ba mu bàyyi ko arafa ñëwaat musdalifa dafa dox ba mu bàyyi ko musdalifa jëm siwaat minan dafa dox ba muy dem di wëri tawaaful ifaada nga xam ne kon daal diggante yépp da ko dox ak tànkam fépp foo xam ne taamu nañ ko fa taxaw tam ci aj gi ni ki almasharul xaraam mu taxaw fa nga xam ne kon yooyu yépp moom matal na ko bu baax a baax mu boole ca nag la ko yàlla dénk ci wërsëg mu joxe ca ngir yàlla ni ki leele ñam weer wax aj goo xam ne daal yii dajana ca jàpp nañu ne ku ñu nangu la te payam mooy ajjana rek